على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما نعم بصحبه على نبي وعليهم آه، أجمعين سلام सजनी बु पाइनवल तुमसी सची असुरी न भेला والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مضى جزل بلا وجل على نبي وعليه أه. أجمعين سلام وسجنين في يوم الاثنين في شهر المعظم إذ لأبرز مدى العشرون من أقوال على نبي وعليم آه، أجمعين سلام ربنا دائما مدى سجنين وكان كان على حب الخلاء إلى أن جاء في الغري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يوننتي صلى الله عليه وسلم نين لين دي نيو di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal di ñaan borom bi mu jéggal ñu ñun ñépp ñu dolli wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax mel na ni fii lañu taxawoon daaw ñaan yàlla def ñu fekkee déwén suñu borom dogal na ko ci lenn si ñun ñu ñëwaat fii kon nak loolu bu la ko buur bi defaree jar na wax alhamdulillahi rabbil alamin monsieur le gouverneur yaag délégation bu takku bi ngeen àndal bi nga àndal ñu ngi lay dalal jàmm ci këru Mam Yunus Yunus Aïdara dafa melni jotay jotaayu mam Mam yunus Yunus Aïdara suñu borom dogal na yang koy bëgg min warna suma jumul war na romb ñaar ba ñetti at ñu di la jox kaddu bi ngay jotale yobante autorité kon nak ñi lay dalal ci turu khalifa bi cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Aydara cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Aydara suñu borom dogal na mom moy khalifa bu suñu mam cheikh Yunus Aydara yalla dogal na mooy xalifa wéy juróom Chérif Mouhamed El Bachir Aydara ma tëdd Ziguinchor yàlla dogalit muy imam ratib ba kër gi nag dafa am organisation te famille bu ne wala mbooloo fu ñu daje loolu dafay baax ba kilifa yi danañu war a xam ñan la ñu war a jëflanteel ñan la ñu war a waxal kër suñu maam Chérif Yunus gii nag yàlla dafa dogal rek ñu am nattu ñun bañ dee tànk ba léegi nekk secrétaire u Chérif di ko attaayaal di ko topp rek loolu may wax nag waxal naa ñépp ndax mooy suñu kilifa ba tey ñu ànd ak moom moom waaye ci mbiru kër maam ay dara musaa ay Aydara moo topp ci Chérif mola la accueillir moom mooy porte-parole famille Chérif Yunus Aïdara mi ngi dend ak nag suñu nijaay suñu kilifa di Chérif Hashim Aïdara Ismaïla Aïdara suñu nijaay Hachim dama tàmm yàlla na yàlla dolli yërmande frère am Ismaïla Aïdara imam ci nekk ni fa magam Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Aidara dend na ak moom suñu nijaay Moustapha Aidara dend na ak moom suñu nijaay Ablaye Aidara moom mi ngi féete Kolda dend na ak moom suñu frère di doom ci suñu wéy jur mi nga xam ni moom moo jëkk a nekk sët bu nekk xalifa Chérif Yunus Aidara yàlla na yàlla dolli leer fa mu nekk muy suñu wéyjur alaaji ay dara dend naa ak moom nag Chérif ay dara mi fi teewal xalifa bu sibi korooto mu suñu maam Ibrahima Aydara ñi nekk seen wet nag ñooy ñi mag ci wala représenté njabooru Chérif ay dara bi teew fii si Bangeer ka mag nag mooy suñu tànt tante ay dara mooy magu Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Aïdara mi nekk xalifa ki ci topp di soxna Mariam Aïdara mooy caatu Chérif ay dara di rakk ci Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Aïdara ñi ci gannaawam nag ràññee nañ si koo xam ni te sénégalaise la muy umu si waaye nag fii la dëkk ndax ndeyam sëtu Chérif Youssou Aïdara la nekk ci wetam nag suñu jigéen di tuuti Seydi li tax ñu di ko tudd nag waajuram dafa jàppale woon magam yi bu baax a baax a baax ci bésu Chérif ay dara muy suñu fàttu ay dara ànd ak njabootam yépp kon buñ ko nuyoo nuyoo nañu képp koo xam ne sëtu Serigne nga di jigéen waaye nuyu nañu njabootu suñu maam eh, tante ay Aydara ndax fàttaliku buñ daan am ndax nag taxawaayam du ay dara gi de ndax taxawaayam ci bis bi kon njaboot googu nag ñoo ko ànd ak ñun ñi taalibe yi pour war la recevoir ak suñu mbokk yu baax yi ci bésu suñu maam Chérif Yunus Aydara programme bi nak ci ndigalu kilifa yi insha allah danañu jox ce chef de protocole mu lim délégation bi buñ ci joggé dana ne jox kàddu gi nga délivrer sa message su loolu jexé nak khalifa bi tontu momi tamit yëkëti ay cadeau mu ñu noppé mu ñaanal ñu ba déwén am na nag réception bu ñuy def am na ñu koy taxaw wàll boobu bu ñu noppee ci lii dingeen ngeen ànd ak Chérif Moussa ngeen dem xalifa bi nag xam na kàddu yu mu bëgg a échanger ak yow ndax boo amee gan kooku nag yéen ñaar yéen a koy def ci appartement ñàkkul kàddu yu muy ak yow mais doona lu dul gërëm la sant la ndaxte nag nit ñi il faut ñu jàng xam ni on est dans une république mu tudd Sénégal Sénégal dafa am ñu koy incarné bi ci jëkk muy le président chef euh, le président de la République monsieur Macky Sall qui est institution am na une administration donc administration boobu au niveau exécutif mo yilif ñep kon nak nit dañ ko war a ci waccu wayam yow lolo moy sa way fi kon nak amna waxtana ki lay dalal bo xamni seen waxtan rek la koku nak inshallah yak sherif yi nakoy def kon nak pour euh, jublu ci mbir mi rek dañuy jox euh, chef protocole bu monsieur le gouverneur monsieur le gouverneur avec votre permission je vous ak mais comme yow da ngay message rek am na Je vous bi nañ sék amul après mom dina traduire pour wa dëkk donc ça c'est avec votre permission on est dans une cérémonie officielle li nga fi bëgg bismillah

bari ñi région be kono kaatu ya présenté janne ka fay ko mool mi misira e dulal doto ne kata jigen chor kol kolda fo dakar e ko fa tabarakallahu aba tentelo wala aba jayla moy amon yetta khalifa o e darne muɗum e go gollata o do bangen o tan kono ko fati e gila e région ngaji ɗi kila jigen chor ha waɗama ɗo présenté ɓen fof jonani ɗumen ɗo ɗon golle mabɓe peewi

wolle ka dow ku amunta ko e banko ñi yobaramal fulol wolle sa sambano wolom ñinti mor kundalu ani manta kunda yani donc c'est le temporel et le spirituel e o wi responsable ji mabbe be gandi ko andube be mala serembe kambe mballatu men dum woni darnde e khalifa be sabu ko ben don pewnata yimɓe ko ɓen ɗon pindinta yimɓe ko ɓen ɗon kollata yimɓe laawol moƴƴol e ko kamɓe ka noon kadi ngoni ko wallata ɗumen ko kamɓe mbaɗata haa jam wona ɗo so a yi jam ɗina won ɗo tan ko kamɓe yimɓe diine haalifaaɓe diine ko e, e, kongal maɓɓe ko ɗon tawa jàmm jooju nag war nañu fexe ñun ñëpp sénégalais de tout bord ñu fexe ba jàmm jooju mu gëna sax fi ci Sénégal singulièrement ci Casamance ñu nekk ndax ku gestu xolé ab ca gannaaw xamni situation bi gënon na metti fi mais yalla ak ndimbalam waye it ak djégo yi nga xamné suñu kilifa yi ñu ngi ko ciy dox ñoo ngi am progressivement ay résultats

sajele ko kayro min mbijan alamare almaya sabati kaatu komanto adi min tanu mbake fitno tarta banko kan soko naji kasamas jamma faŋo la fitno tarta banko kan bar doman doman ala fele abe jisuma bonna kan doman doman doman doman ndun wo be de ani alfal soko wala walla kundal wol be mansakundal do ko ala moral duwal wole ba sabari bi biñun se duwa wo kayro ala wo alma sabati la o wi fa tabarakallahu oɗon gandi e ɗo wonɗo joni eɗen dañi jaam on ɗon jaam ñagoɗen allah on ɗon jaam tabita saabu ko ɓue e, duuɓe duuɓe to ɓawa ɓurino ɗo mettude ɓuri ɗo sattude ko hareje hareje kono ɗo noon allah waɗi hen ndiyam ɓuɓɗam ha jamɗi ni ara seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa ɗum noon ko ballal seeren ɓe e golle wonɓe leyɗe e, yimɓe laamu

situation bi am au niveau international di nga gis ni am na yeneen menace yu nekk di dugg ci ndànk-ndànk ci biir réew mi du ci réew Sénégal de waaye ci réew ñu war ak ci Sénégal sax te tubaab mu koy wooyee terrorisme mu nekk li nga xam ne ay nit ñooy mubboo diine di boom di reyaate di wax ni diine lañuy ñuy liggéeyal diine lañuy ñuy taxawal te fekk lañ ñu bëgg gëmloo méngoowul ak li nga xam ne moom lañu ñu masaan xam fii si suñu réew moom la suñu kilifa yi tedd yi nekk fii ci biir Sénégal loolu lañu ñu mës a jàngal lu ñu mës a jàngal utee na ak li nga xam ne loolu lañu bëgg importe indi ko fii ci biir réew ndax Sénégal nekk na réew bi nga xam ne tolérance dafi fi yàgg xam tolérance ci bir ben religion mo xam tolérance diggante ñaar religion mo xam tolérance entre ethnie ak communauté yi nga xam ne yëpp ñoo fi nekk ci Sénégal loolu bokk na ci lu tax ba Sénégal ñu naw ko ci sous-région bi ci monde bi yëpp mooy stabilité cohésion nationale ak tolérance religieuse bi nga xam ne yàgg na fi am e ako ko wala nga ne ko fitno min bi nyen ja fitno ni ibadu ben kan doman doma ibadu du ben kan doman doma du mo dol wil tanak pour ka fitna do mala ko tenke senke kun woto ka tu ni ji ben dala bankol to jang fitno be adula jamato nuwo mol min ka wol wilindi tubabal ka fumine al irhadi joni manam eh, les terroristes wol ima wili fen kamma amunta tako ye diino ye diinole kele dendi kote diina dendiyole ɗum e laftanmol dankende la kuurla mi yaalon ka nin diino ma ñoototo fenna bade foytol diyama fen o no kaatu kata iɓe mol faala iɓe dina mitirol kono iɓe ajani la ala yaala o manque diinote ako wo kuu sifan nan wala nan senke kon wala fam fanke o wi oɗon gandi mbiɗen jam o ɗin nan ɗone fitna o fitna ka nan ñife seeɗa seeɗa on fitna nan ñife seeɗa seeɗa kon on ɗon fitna yimɓe go no waɗi yimɓe nan ɗon jiɗi ko e imminde on ɗon fita kadi fitna goɗɗo kadi sabu so en jii ko taari leydi ndin ko fof eɗen nana ko won ɗon yimɓe nan gummi eɓen ɗemjina yimɓe eɓen kulɓina yimɓe eɓen mbara yimɓe e dow ɓe mbi ko diine ɗum ɗumno diine haalani ɗum naata jamaji walla ena werde yimɓe ɗi diine haalani ɗum kono tuba tubako wi terrorisme e ɗum noon mbaɗen watten ɗum hakkille se no feewi feewi feewi loolu no ako wowde se hakkille to to fanfanke jamma nag ci la lépp xëj ako kayro ɗum kuo ɓe kakum wole kono jamma nan ko fii koye nder jamara heƴa te bala nga xam njariñon nga ñàkk ko benn sogon sabu harema andude nafoore jam haa mbaasa ɗum ako janniɓe kayro nafaalon na foni fota kayrola wotugol e lon iba nafa lon te xam naa ni ku juddoo Casamance wala di fi yeewoo xam nga lan moy njëriñu jam ci biir askan wi kaatuwa ka yaalon ne ko miliyalon ko e wuluta Casamance jan wi ke ko Casamance jay ka ha itol yaalon kayro mo menti omon anndi jibinande casamance walla ɓe ngannduɗa eɓen mbaala eɓen fina e nder casamance ɗo ɓen enen gandi ko jam ko jam e, ko jam nafata kon bopp nañu fexe ba jàmm boobu sax fi te ñaan suñu gaal bi di Sénégal mu mucc ndax suñu bëggee mucc ñun ñëpp il faut que suñu gaal bi njëkk mucc ako woto so fenke fere ke nga wo kayro kanta sénégal mi yalla na kulun lo ako mbe sen ke nañu kulun ñin ase ase tanka kaatu nin kulun ñi tanka mbe se tanka bar ni ko kulun tiyoy e fenke nin kulun kupita bele la ñon la ala man tanka lawla o ya eden gandi jam sénégal non ko be mi ko lana ina yi ko laana laana ka noon mbaɗen feere ha wasa wasa huppade saabu so laamno ko a huppima enen fof en jooloro yo allah dandu en benn bis ma ci teg mooy di ñaan askan wi surtout ndaw ñi ndax fii ak ay weer bu neexee yàlla dinañu dugg ci nawet ku xam Sénégal xam ni nawet am na fi importance lool ndax suñu koom-koom lu ci bëri ci agriculture la sukkandiku ci mbay bi ako o koola a kaaɓe ɗanir kela wo daniro ɗum aɓa ɗanila aɓe fonninkille danilala wo fonninkel miila tollon sembetiyolti kata ali alan ko jannin kari dantandoron ɓe dunna sama kono no ali alan ko sénégal la soto aɓe senole bala wo seno nak fo fon kel wolle ñaati ñaatili nawola kaate wali sibanko samba ñaato o wi e omon ɗo won ko ñaagi ko ñaagi ko noon oyi ko sukaaɓe o ñaagi ɗum sabu ɗo e lebbi tan ma en naato e ndunngu eɗen nganndi e keɓal sénégal koye ndema woni so rema so ndema woni remgol noon ɗum ko sukaaɓe mbaawi ɗum ko ɗum waɗi omon ñaagoɓe ɓe tiinno no feewi noon sabu ko ekonomi eh, senegal sénégal ko ndema jogi dum agriculture nak mané agriculture nak mbay mi amna solo lol te bo setlo suñu kilifa yi japp si ci ngi njitu rew mi amna na solo bi nga xamné ne jox nako mbay mi ndax bëgg na ci at bu ñu nekk ni sax ci 2017 ci

manam nka ndomo feŋo faŋo ka tenen faŋ ye yaama du banto ña e eh, banko ton ko lafta walla bidun sen sen wakil nga muta fewo ñama o yo don gandin dema non manam mawdo leydin o mun hucci e muɗum mun hettini ɗon sabu o yidi ko gaddete maaro gowal leydi taw ko kala ko nyaami taw ko enen ndemata on on gata e bowal e leydi ko min mbiyata autosuffisance eh, alimentaire ganda kala ko ñameten koyene ndemata ko ñameten koyene jeyata ko dem ndemeten ɗum noon mawɗo leydi ndi yiɗi ko hade nde ɗo hitande gasde ɓe jotto timmina ɗum yo ya allah waɗan en ɗum loolu bu si askan wi jàppee lu mën a nekk la ndax boo xoolee ci région Sédhiou am na jéego yi nga xam ne def nañ ko ci ba tax am nañu ay résultats yu am solo lool ci wàllu riziculture dem nañu ba fii ci biir région bi lépp li nga xam ne pluviale Madame, ceeb bi nga xam ci nawet lañ koy béy ndox taw bi moy tax ñu dund am nañ ci résultat ñu placer sax premier au niveau national ci walu résiculture pluviale fi ci région Sédhiou ako kaatu aliyaalo ñiŋ senoo banko ñaaton ko ay ku jamal ki yeto mi nga misal fe nañi région doron doron région kujama keta jeto wala na résultat betol sotota jeto oyi so en ƴeewi ndema ka mawɗo leydi ndi ko waɗi no hitinir he e muɗum en tawat so en ƴefti oɗo région seedo tan mo ko on o ardi résultat ji moƴƴi dañama ɗo henne bisimilla kon loolu buñu ñu mu continuer il faut que ñepp dugal ci sen loxo ndax région bi am na potentiel maanaam am na ndox ju doy te dañuy ñaan yàlla mu gën a yokk am nañu ay vallées yi nga xam ne ñu ngi siy pratiquer riziculture mais surtout aussi am na accompagnement bi nga xam ne état bi mu ngi koy def ci wàllu agriculture pas seulement pour région Sédhiou mais ci Sénégal yëpp moo xam ci wàllu matériel la moo xam ci wàllu semence la waaye nag euh, nit ñi il faut que ñu gëna yok sen engagement ak sen Pastef ndax mënuñu tok croiser les bras nan dañuy xaar à chaque fois état bi indi matériel bu doy indi semence yu doy ku nekk war nga indi sa contribution état bi fekk la ci ako ñi do ku fenno mi yaalon ko beele ñante gulo kele beele ñante du e eh, bulo du najeto beele ñante da la najeto ndum nkana ci drone fo nga fo ko man sama masinol nati nga fo man sama turo naati man sa fɛn fe ko naati mo bee le ñante la feeroo ke la fe fɛn yaa lɔn ko ise se daabula ni jeto ye feeroo ke ise ye i ye daabula pra pour a ka tu mo dula jama bi jeto de vale mi yalon ko ye je dadaa mi yalon ko hanni sama manke mano se ro seno hanni til kando kono i se je seneno de wo bee la feerol le kono inchallahu o wi oɗon gandi oɗo ligge manam demal il faut yimɓe fof nanna ɗumen ɗon juuɗe maɓɓe e tan laamu addani laamu addani laamu addani e, manam kaɓirte ɗe man gaddaka walla mbiyen e awdi heɓani walla ɗum wandita eɗen jooɗo tan eɗen paade laamu kono fof waɗa yo peeje muɗum ha tinnoɗen ha ɗum yaha yeeso buñ dundu man nga ci sutural sa njaboot yaakaar naa ni moo ëpp solo te moo gën ñuy jël fois ay risque di dugg ci ay gaal wala di jël yoon bi di tante li ñuy wax émigration clandestine kenn waxul ni dem bitim réew baaxul waaye boo ci dem na nga fexe ba dem ci ci anami yi leer yi nga xam ne aussi sa kaaraange di ko assurer te boo seetloo alal ji ngay jël dugal ko ci te xëy na leeru la ni fi ngay jëm di nga fa yegg boo ko dugaloon ci exploitation bu ndaw commencé ko ndànk-ndànk mën nga ci sutural sa bopp sutural si sa njaboot. ako kaatu ñin seno ni nga muta fanfanke ni nga muta kunke isinaje senela o senela isinaje ila seno isakar balu no ala isakar le dimbayel fana balindi no ala e wala fi siyata ye fambula ya fo ibita ba kono ibita kulon to ita ba ibide fam fala ba kono aka ma fo ko mo kanta bantala nyini ndiro la de bari fam fam bita jeto isa kuma koyo kan isita sila koyo la bari yete fam fay ba kono nu jama jama e ka nafulo min dun digoto pour kata niya dun dinun doku oto walla nyin senoto walla firo do doku doto isinaji se fanna fano bari so nafulo ta ita katare wuli fam ni nuyetu ba kono ay Ndemaka, ka omo buri, ko ɗum ɓuri sabu so neɗɗo tinnima ɗon wawa wurnude hoore mum warna ɓurna ɓesgure mum Dung buri, eben jaha elana eben eɓen e ma e, e, e nder maaje sahaji noon tawataɓe ƴefti e jawdi hewndi taw babaji mum dokki ɗum jawdi di fof ɓe bonnoyi kan ɓe maayi jawdi perdi ɗum noon moƴƴani tinnoɗen non o wiyan noon hay war hay goto yaade o wi haalani kono kala jahoɗo ta adon yahi e dow dow ko laaɓi jaaruɗa e lawol moƴƴol jaruda kono na adan ya, yaha aɗan wara hoorema e, e nder maayo kon bokk nañu gëm suñu bopp toog liggéeyal suñu réew te xam ni keneen du jógee feneen ñëw liggéey ko à notre place ñun ñoo ko war a liggéeyal suñu bopp ñun ñoo war a yokk koom-koomam ñun ñoo ko war a mettre sur les voies du développement du keneen moo koy jógee feneen ñëw def ko à notre place a ko wo kamma la ntolu le ñanta ŋa daŋ keneyaŋ faŋ na ŋam nabanko doo ku karatu nabankoo ñiŋ moo do tina la banta la ye a fo i be ñiŋ banko doo ku la ntolu daŋ maŋ ne ñanta ñiŋ banko doo ku la ntolu daŋ maŋ ne ñantaŋ na sotofeŋo wo ye a ni banko la sotofeŋo ntolu daŋ maŋ ne sa a kafu no ah, bari niŋ a tuñoo ñaama banko bi taa kooma le ndumbe le bi taa ñono kooma o yi e doo ɗum o ɗo ngandi keɓal leydi ndi enen poti ɗum liggaade enen poti nabrude leydi ndi yeeso kono so en ɗacci reydi ndi maaru maaru to caggal enen fof ñu to caggal ɗum noon moƴƴanta en kon ci loolu laay daanalee sama kàddu di dellu di gërëm suñu kilifa gi di ko ñaanal yàlla suñu borom mi nga xam ne dara taw ko mu bàyyi ko suñu kanam nu mu gën a yàgg yokk wergu yaramam gën a dëgëral taxawaayam ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def ci askan wi te ñëpp naw ko mu continuer di ko def mu nekk suñu njariñ ñun ñëpp kon maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant wasalaam yo akabala kumo dan na jang fodron ka muru ka alfani ka tontu ka jayi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 وافتح لنا فإنك الخاتم وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا وليسنا من قوم الآخرين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أدنى أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا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 Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur les sous-préfets, Messieurs les maires, honorables députés, Messieurs les différents chefs de service qui accompagnent le gouverneur, Mboki Khariti, Mboki Mboki yi mbokki nous taalibe yi ñu ngi wa rahmatullahi taala wa bi ñi jiital ci nag surafa yi toog fii tey seen bés la seen bésu maam la ñu leen di wàcce seen wàccukaay di nuyu mbooloo mi fi teew yépp waaye nag balaa ñuy euh, continuer suñu kàddu gi monsieur le gouverneur ñu ngi lay jaale ñu ngi lay delloo njaalu xalif bi tiis bi tiisu Sénégal yépp la xalif bi mu ngi jaay mu ngi jaale président de la république ci tuuri famille chérif yi nu si yëpp tiis bi ñun ñëpp a ko bokk lu ñu leen fi ñaanal yal na leen ko yàlla jottali yàlla teeru leen si yërmandeem yërëm leen xaare leen ajjana te am nañ ci yaakaar sax parce que ci toolu yàlla lañ nekkoon ba lii fekk leen ci kon nag lii am nañ yaakaar ne tey ñu ngi tedd ajjana yal leen ko yàlla defal eh, monsieur le gouverneur chérif nee na dégg ce message message bon, xam qui président de la république le tukkee Mui kàddu cant Momit it fu mu toog tey président ci tour famille bi yëpp ne mu koy gërëm gërëm bo am bo amul tàmbale bo amul fin ndax kat ku la defal lu baax ne président de la république bay na xel bangeer bay na xel bangeer ndax kat am na yu ñu doon jàmbat fii bu lépp amul sax tey gis nañ tàmbali bi te nit ki kat booy jàmbat dara ba gis tàmbali bi nga mën am yaakaar ci luy ñëw gis nañ ne jumaa bi amoon nañ ci jaaxale lool lool tey jii ñu ngi koy restauré alhamdulillahi rabbil alamin daaw ñu ngi fi doon jàmbat affaire ndox ren ga bi dem na vraiment amuñu bet ken amu ci problème ndox am nañ yaaka forage bo xamne dinañ ko fi gassal koku yag nañ koy yàgg nañ yag nañ koy jàmbat ren yaaka nañ bala 2017 bi di di jeex dinañ ci am forage centre de santé buñ doon wax am lu taxaw koku nak dañ ci centre maireu Bangeer ci taxawayam ci momit ñu koy nuyu

nu mu bàyyee xel bangeer nu mu jàppee jàmbootu Chérif Yunus yàlla na ko yàlla jàppale mu ngi sant également ministre de la culture ndax kat liggéey jumaa bi moo ko amee ñëw na fi ñaari yoon si soññ rek te su sañoon tey jii ci gàmmu gi ci a euh, centenaire bi ndax kat suñu gàmmu ren yàlla dafa def muy gàmmu bu particulier dafa coïncider centenaire deewu laqu Chérif Yunus ak tey tey la am cent ren jii la am cent ans ci suuf ñu bëggoon koy màggal boole ko lii na tey nag defuñu centenaire sax mais dañ ko ubbi rek daa dëmb fii la ñu yendu ay ñaan alxuraan ñaan ndax ci ubbite centenaire Chérif Yunus donc euh, le ministre de la culture lu mu yéene woon tey jii bés bu ñëwee def gàmmu gi fekk jumaa ji para mais yéenem la am yàlla mooy màttali mu ngay nuyu nag sa gouvernement bi yëpp bàyyu ci kenn gis na ñoom ñëpp Chérif nee na ñëpp ñu ngi am bay xam ñëpp a ngi bay daal xel bangeer gouvernement bi mu ngi leen di sant mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Chérif nee na na sa message sànni nga fi lancé nga fi message ci wàllu développement particulièrement ci développement agricole li nga wax dëgg la ñun mbéy ci la nit man dundal boppam tëral boppam te kenn duñu ñobeel suñu suuf si kenn duñu ko defaral mais nag bangeer yii ki ko socc béykat la woon shérif Yunus ay toolam ay perte bi nga koy gis toolu banaanam c'est des milliers milliers de de plans ngay ngay ngay ngay gis luñ si ni l'histoire raconté dafa daan béy di ñàkk di ci dund ay élevage am boo demee to géttu nagam ay milliers la ay milliers milliers noonu la fas yi mel noonu la xar yi mu loolu nag dafa doon ne lépp ci suuf si lay ci suuf si lañ malheureusement monsieur le gouverneur suñu suuf yëpp dañu am xorom kenn mënu koy liggéey bi am ci suñu jigéen ñi des ñoom yëpp ceebu mbay mi lañ daan dunde kër goo ñëw boo leen mayoon sa ceeb bu ñu jënd si ñu delloo la ndax lii yëpp ay faro la woon faro yaa ngi ni tey kenn mënu koy utiliser langue sale bi doon na loo xam ne tey jaaxal na nit ñi lool lool loolu nag am na ñu ciy dox ñun ñaa ngi taxaw ñu ngi ciy dox ñu ngi la koy santaat parce que xam nañ ne tey monsieur le gouverneur jig nga bañ jig nga bañeel ndax trois ans yoo fi def ay depuis dix ans am na projet yoo xam ñu ngi koy ñaan bangeer mais yàlla yoo la ci tombé defar jumaa bi sa sa sa gouvernance forage bu ñu doon ñaan ci sa gouvernance également ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dégmal nañ ko dinañ ko gis bu du yàgg insha allah tegoo ko nag dañ la ci sant parce que ñu nit xam nañ ne monsieur le gouverneur taxaw nga bangeer nga wax ko waxuloo ko gis nañ ñooy taxawu bangeer kon nag yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla taxaw kontaan nañ ci lool lool lool euh, sa service yi nga fi yónnee yëpp ñoom it taxaw nañu muy Senelec muy sécurité bi muy hydraulique ñëpp a ngi def daal lu ñu man pour gàmmoo bi santenaire bi man am réussite ñu ngi leen ci sant bu baax a baax service yi nga fi yónnee yëpp ñu taxaw nañu

ba léegi am na loo xam ne dinañ ko dinañ la ko jàmbatal monsieur le gouverneur gis ngeen gan yi fi ñëw tey yëpp nit ñu jógee nañ fu nekk kilifa bu nekk mu ngi bangeer tey mais suñu problème mooy fu ñu leen dalal tey problème la am na kilifa yi nekk foo leen di dugal foo leen di dalal donc loolu yëpp ñu ngi la koy jàmbat pour bangeer ñu xalaatal ko place ay logement yoo xam ne ñu nit suñu gan yi bu ñëwee dinañ leen fa man dalal

Euh, jàmbatoon nañ fi CM ndaam diggoon nañu ko sax ba projet bii demoon nañ ba ficelé ko ba mu dara desul exécution waaye ba léegi CM boobu nag gisaguñu école arabe a ngi fii xale yi suñu njaboot ñu nekk bitum réew débrouillé nañu ba yoon nañu xaalis bi ñu restaurer école bi mais tey tey jii am nañu problème jàngalekat am nañu problème jàngalekat ñuy ñaan ñu ma ñu mën dimbale ñu am fi jàngale boo xam ne état bi nañu ko mën dimbale diñu ko fayal mu jàngal suñ euh, jàppale ñu si njàngale monsieur le gouverneur euh, am nañ problème boo xam ne aussi problème bu bu taxaw la mooy lotissement Banguère lotissement Banguère man de bi may xaleel ba léegi maa ngi dégg lotissement Banguère ba tey jii am naa 72 ans ba Banguère lotiruñu te dëkk buñ ko lotirul du ne fenn ñu fi nekk yépp ku ci nekk tey bëgg nga am sa parcelle tabax fa kër ba ngeen mais lotissement bu amul mënul dem ñu lay ñaan nag nga accompagner ñu si maire bi nu mu gën a gaawee ñu man lotis Bangeer nga xam ne ñëpp dinañu am seen parcelle ku ci nekk ñoo def ci donc Bangeer yi bare nañ fi surafaay bare nañ ku ci nekk bëgg nga fi am sa kër waaye tant que lotissement amul

lépp fekk si ko waaye day bay di jaamu yàlla ba yàlla jox ko li mu ko jox kon nag boo jógee si kooku na nga am jom def ni moom na nga liggéey na nga jaamu yàlla loo lekk mu lew loo ñaan yàlla defal la loolu euh, Cherif mu ngi leen koy dënku njaboot mu koy dënk également taalibe mu koy dënk également taalibe ñuy jàpp gëm yaa gëm nangu jaamu yàlla muñ doylu suñ ko defee yàlla mën na leen jàppale yàlla yàlla du du lu mu amee da koy jaay nañu fexe nag lu mu yore ñu mën koy jën te jënd bi nag suñu liggéey la rek xale yi njaboot yi ñu jàngal leen njaboot ñu jàngal leen njaboot bu jàngul amul amul amul amul mujj nit day jàng xaleel boo ko amee yar ko jàngal pour suba mu man mu man lii war na wéy Chérif ñu fi nekkul tey doomam yi dem nañu sëtam yi ñoo fi nekk sëtam yi ñooy continuer di ñëw ñooñu nag bu ñu amul xam-xam bu ñu jàngul kan ma fi ñëw ba bangeer day wéet gi day gën a wéet rek Chérif moom may tëdd fii lu mu amam nag ku fi ñëw loo fi ñaan di ko am mais ñun jaboot suñu ne ñu yaakaar ñaanal leen bu mënul am nag dañuy xeeb te xeebal boobu nag loolu lañ leen di éviter njaboot bi doom yi sët yi ñu ni fi nag ku ci nekk na nga fexe nga yar sa doom jàngal ko message boobu Chérif nee na ma jotali leen ko mais at bu nekk mu wax leen mu ngi ñaan yàlla nag nawet bi ñuy dëgmal yàlla nañu ko yàlla defal nawet bu barkeel nawet bu bare ndox kontaan na mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Allah, we الجبار لا إله إلا الله الجبار لا إله يا يا الملك كل جبار up on عليك طهر لنا من دنس الحرام أنا قصف سيد الحاج مالك لنا طهر طيب، لنا من دنس الحرام وسورة موجبة المنام طهر لنا من دنس الحرام تزكي وسبحة الموجبة الملام كل وليا غافرا نصيرا جارت معيسا ساطرا بصيرا أعط لنا معرفة تقينا بها الخطى الذكر واليقينا لازم تكفينا سرور الدهر جاي أحمد سفيع البر مولانا محمد صلى عليه الله ما مؤمن إلى القيام سريع يا قريب يا مجيب أجب دعاء مضطر حصيب مولانا تريد ربنا مريد وأريد ولا يكون ربي غير ما تريد قدر لنا الرضوان وتسليما لكل ما تريد يا حكيم يسر ولا تعسر يا مفيد واجعل لنا لكل طيب مخرجا طير لنا من دنس الحرام وسوات الموجبات الألام تهير لنا بالتنزيل حرام تنزيل حرام وسوات الموجبات وصفي الليل في وضين أتى بالتنزيل حرام وسوات الموجبات الألام بدر لنا من نصر نصر ما بدر لنا وسعد الموت وصفصر ما بدر وطيلنا من وسوات الموت غد الغنى نصر المصعد رانا سواد الموت قوس قصر فيونا زلا وطيرنا تنزل عرامي لكل مولى وسواد الموت بدل غلا عنا صبي يزوري فيونا صحيح وسواد الموت قوس قصر تجال عيدارة

waa bangar dan bi fi def leen ana soppay surif Musa waa ضيلنا بالدنس الحرام وسوءة الموت فتن ما بكرنا خيزك ku sopp sëriñ Babacar ku sëriñ Babacar ku sopp Dabakh Malick ku sopp Sërif Yunus ana soppay Mam Sërif Yunus ana soppay Yunus ana soppay Sërif Moussa soppe sëriñ bu Seexu Tijaan ana soppe yi sëñ Babacar waaw waaw koy nana bindana silhaami wasuatina mujabatina malaami waaw waaw koy nana bindana silhaami وسورة موجبة المنام لنا من دنس الحرام اسقي وسبحة الموجبة الملام كلي وليا غافرا نصيرا كانت معيسا ساطرا بصيرا أعطي لنا معرفة تقينا بها الخفا ذكر واليقينا لازلت تكفينا سرور الدهر جاي أحمد الشفيع البري مولانا محمد صلى عليه الله ما مؤمن إلى القيام سريع يا قريب يا مجيب أجب دعاء مضطر حصيب مولانا تريد ربنا مريد وأريد ولا يكون ربي غير ما تريد قدر لنا الرضوان وتسليما لكل ما تريد يا حكيم يسر ولا تعسر يا مفيا واجعل لنا لكل طيق مخرجا خير لنا من دنس الحرام

تر لنا من نصلح نسر الباب تر لنا وسواد الموت وصف سر الباب تر وطيلنا من نصل الحرام وسواد الموت وتنغنى تصلح نسر الثلث عدنا سواد الموت قصب قصرف ويوم زلح وضيتنا يزنز العرامي وسواد الموت غنى غنى أنا صبي يزوري يونس حيدر وسواد الموت قصب قصرف تجال حيدر

وسواد الموت فضلنا سوري بابا كرنا وسواد الموت انا صوتي سن شيخ ديجان وقلنا انت تسل حرام وسواد والوصال وصافعنا المحتار من مدن مقرنين غير البرايا جميعا قابوا أيا قارب الفحتاس ناد وقل له أيا معين بذكر الله بلغ مطالبي إمام جزاه الله من كأفضل شيخ وحكم في ذرقها والمغارب وأمضى تاج المعاد والحرام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اختفى آثارهم إلى يوم الدين ورضي الله عن صاحب الكتم والحتم والفيد المكنى بأبي العباس تاج العارفين سيدنا ومولانا أحمد بن محمد السالم التجاري ورضي الله عن وارثه ووارثه الخلفاء العالمين العاملين المخلصين سيدنا ومولانا سيد الحاج مالك السي القائم حق القيام في دين مالك يوم الدين ورضي الله أيضا عن حبيبه وخليله المعروف ببرم بنير سيدي ومولانا يونس شريف وسائر خلفائه ومقدمي وتلاميذه أيها السادة الكرام نحييكم بأحسن التحية وأزكى تحية نيابة عن شيخي وسندي ووسيلتي الحاج مالك مودة نجل الحفيظ مسلم قاسم منصور ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله 그들은 Sera si moom sera si moom kaasam yaakaar naa ne ñëpp dégg na ci guddi yi centre bi si centre bi si dégg oustaz moom ak ab dëggal na leen ce sont xoolal ce sont oustaz moom wax na leen kuy borom guddi gi mooy Chérif Yunus waa kër Serigne bi nag su amee bés bés bu toll nii bu ëllëgatiku gis waa kër Serigne Asimane bés ba moom kulóoru na. centenaire waa kër Serigne Asimane ñëwuloon bés bu kër me maam moom ñëpp ñëw nañu ñii mun ñëw sax seen yéene ñëw nañu kon nag nga gërëm ñëpp sant ñëpp di leen yëgal ne waa seen njaboot seen dund yëpp bët nañu képp seen dund képp ku mu am ku mu jur baax ku ko jural ñëpp teew nañu baax seen seen digg nag nii rek da koy gàmmu gàmmu sunna la amul folklore yoo xam ne yi ba yëpp dañ ko teg ci yoon ci sunna wax ku yónent bi wax ku Chérif Yunus Cheikh Ahmed Tijani Cheikh El Hadj Malick Chérif Yunus ba ñëpp de kon nag mu ngi teew ñëpp mbooloo ngeen jógee ci waaw nag mu leen di yóbbante ci suñu doom bàyyi na leen bu ngeen fa jëlee kóllëre diggante Serigne bi ak Serigne Aliou Malick ne Serigne bi dafa ak Serigne Aliou Malick ndox suukar la suukar soo suukar soo seet bi ndox boole tuur maa boole naal ma ne xanaa boole naal waaye boole ci kaw dem. oustaz uh-huh. ma amul sérieux virus. waxoon nañ leen bala maa su ma amee téeméer ak suuf. waaw ci la ma nit ñi di xam. dafa nekk doom bi ma jur dootul nekk ci kaw suuf. léegi ay sédd rek a fi nekk. mu ne te baguette bi nag suma sët yi noo koy defasi hmm. te bu fay mukk te defe naa ne dugg si yoon bi nag léegi lu waxoon ngay ñëw waxi wala yu moom déggu di àll rek waaye du fanaan hmm. ubbeeku na nag hmm. bés ni tey ah. ah. moom ko abal c'est-à-dire li ubbeeku mu ne gas mu dugg. ku bëgg a duy rek na duy. waaw waaw. moom mooy yëngu. sëriñ bi suuf ubbeeku na tey maa la ko wax. dëgg la dëgg la dëgg nañ ko. aaji boobu fu nit indi. tey jii. nga aajo ba loo fi mu tey na yëf yi ubbeeku na tànk rek te dogu nag. te taal bi day dogu ne lii may ñaan su ma barke sëriñ dogu naa ne yàlla dina ma ko defal te bu ma am si kër sàkk. waaw am na dégg dégg rek yàlla seetaan la kon yàlla yàlla faj aajo yi yàlla yàlla saafara jàppale yi mu ngi ñaanal ñëpp yàlla daal indi leen ci jàmm delloo leen ci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 Yeah.